waaw nguur la de doom day mais nguur nguur foo ne nguur a bàyyi sénégalais yi bàyyi nañ la de sénégalais béyul ma de waaye da nga tay da nga xewi laa doon leen defal laa defatul rek la nga neexal ba mu neex ah dama am yeneen job loo am xam nga en même temps chauffeur camion la Ah. yore ay camion nekk ci entreprise di jóor waar. waaw bokkut ak aaru man dama yoruma aaru kese. ah mais mais bi nga yoroon nga nekkoon nga ah, kii mais tamit da nga daan neexal da nga ah. xewi rek nag. nangul non non non ñu nangul nangul xam nga duñ xewi. waaw xam nga duñ xewi. liy safal ak liy neexal yor nañ ko. mais dan yor liggéey boo xam ne bii. xool jóoni jóoni la. jóor leen xaalis génn léegi mais boobu waaye teewul tamit man bi may génn dafa tombé coronavirus kenn liggéeyul de man nag mën a jiite bi ko toog coronavirus laa génn coronavirus kenn génnul ma tëj ndëkk bi boo ko ma artistes yi nga xam ne dañuy studio di way ba ñu neex de coronavirus ci laa tax a toj réew mi mbay mbay boo ko maa gars yi de da nga ne woon da nga ne woon da jëlee Youssou Ndour di fi jëlee ay Waly ñoo la fi jëlee non yi moom loolu ñoo ko si yokk rek mais dama leen à part Youssou Ndour rek man maa fi dàqa way rek mais musuma wax naa fi jëlee kenn ndax jëlee moom yàlla ko fay def waaw damay à part man maa fi ne uh-huh. te bala ñu ko a xam ñoom leen ñi leen dar ci orchestre boobu suñu ma dara gars yi fàtte gaa lan. yi ñi leen dar. suñu uh-huh. ma dara gars yi fàtte leen ñoom. ah mais yow lan moo tax nga déglu moo tax nag wutal damay la. ñaari métiers yi ma boole. Uh-huh. moo tax yenn saa damay reculer. Uh-huh. dem ca juune juune ba dóor léegi. mu léegi nii mais bi est ce saa bu ma neexee ñëw mbay. kañ lay xam naa ne nag après Magal Touba. Ah. bu soobee yàlla dinaa ñëw tëjaat dëkk bi. ndax la ma mënoon lu gën a garaaw mi ngi fi. lan nga mën mooy way yu neex reetaan lu nit ñi octave jaxase réew mi xam-xam ak tonalité yoo xam ne kenn mës koo gis fenn ku dul Ngouda Beye moo koy def. lan nga lan nga xam si réew mi ji waaw réew mi li ma xam nag fi ne nag métti na nag ndax li dee ci géej gi ci ay doom bari na. Uh-huh. ñun tëj ci kaso bari na. Uh-huh. ñi bëgg a génn réew mi bëgg bari na. Uh-huh. ñi amuñu lu lekk ñi amuñu métier ñi amuñu fuñ jëm. dafa mel ne mbay dina wara wañ jurmi de tuba bi na na wañ jurmi ku nek am ñaar dom ñi feree ne dom yi bari mëno ko régal mëno ko regle bari yi bari ci kaso bi de ñeñ ñi dee ci géej gi réew mi nit ñi jeex de ñi ci kaso yi ñi ci géej gi nit ñi jeex nañ presque mbay fu ñu nga ngaa war a am benn wala ñaar dom mëno régal xalé yi mëno jox métier kon ke nan bay affaire bi nak mbay ah jur ñaar dom taxaw mais jur fukki dom ak mo lo ne regal mënoo leen réglé ñii ne ci kaso gi ñii ne ci mbënd mi ñii ne ca gaal ga. foog su ñuy téeméer yéen a baax ñaar fukk. jàgg Sénégal jeex. mais euh, euh, euh, maa ngi waaje a génne nag awaloo. awaloo moom laa bëgg awaloo. ngir buñ ngiree doomu aw ma maay si si awaloo loo waaye waa Louga mi ngi war a génn fan yi waaw Sëriñ yaa ma jàpp ordu. ba may tagg sa yaay yow de. fàtte sama yaay man de bu ma ko deful dinaa dee siri daanu naa nga ñu daanu woo ah, ah! daanu naa dem ma seen si def ma rukur daan nga ma sa curaay lu neex li nga jàpp daan nga ma wax yu neex di nga jàpp daan nga ma seedi yaa ngi may gaañ waayi mbay ah. lu ma ñoom dul man nag ah. bokkul sax nag du ah. ñoom du ma ñoom dul man waaw jaajëf Gouye ay eh, kontaan naa doom day yàlla yàlla defal jàmm sa loxo da fi nga ko teg fi la eh, wayef rek comme ni nga wayefe nii continuer di wayef rek laa biir wayef rek moo si mën a génne quoi. waaw da nga ñëwoon si Almadies bi woon. waaw Sidi Diop mi ngi doon tëgg Viviane mi ngi doon tëgg nga si baal yi. oh Viviane mi ngi doon tëgg Sidi Diop di tëgg man nag Waly laa baal si wan ndax xam nga ne Waly sama ma doom ndey la. fii la ma woo na ma Ngouda Beye yaa ma daa xaway yaa daa xaway Sénégal man nangu naa ah gars yi nangu nangu ma ko teel a nangu day woyofal ay duma comme teel ngaa nangu nag yow laay baal si yow laay waxal waa lay fi nekk Ramdaan waaw ñoo fi ne ne jaajëf ñooy tëgg lu neex li ñooy way lu neex li ñooy oto yu neex ñooy jongama yi neex Ramdaan la mbir ma ne waaw ñoo Ramdaan ah jaajëf waaw ak jaajëf dee doom de Sidy Diop la waaw Sidy la mooy itam ah. nekk su rakk nekk ndaanaan mais maa moom xam nga dañu wara affronter ci affronter gum waaye li ñu affronter ma ak mom mais Sidy Diop mom xam nga yenn saa damay ñew soirée gaay di ma jëme xex na do waye ak di ma jéem a ata ñàkkal te Matar suba teel xam nga mu mënu Matar Diop suba teel Matar Diop suba teel mais nee sa ñëpp ci wara japp Sénégal jëm kanam mais da ngay ñew gaay di la baare ci porte beeg di la baare ci buntu pourquoi ça lolu té wali do loolu waari kenn kenn ma ñu may baare man may ngude bee l'international ba am ran su du moro mu Njaay gars gaay la ko jëm na may tabas wa bokkoon ñom dama ñom duñ man dé bunt yi nii bàyyi baar dañ koo baax ndax Sëriñ Juuf ba mu jàng way ak ba mu bëggee way gars yi kenn tëjul ko suñu bunt nanu bàyyi mu bàyyi dañ ko bàyyoon muy way léegi da ngay ñëw waa suba teel ñenn ñi baare bunt yi ñenn ñi doo dugg wala nga dugg ñu ne doo bëf pourquoi ça loolu Matar Diop suba teel war naa wax ci loolu wax nga ko wax nga ko Sidi Sidi Diop waxaguma ko dara woo naa ko fa ne jëlul mais Matar Diop mi nday mbir ji laay waxal damaa war a way damaa war a wax ci réew mi laa bokk Sidi Diop donc moomul suba teel ah Pape Diouf moomul suba teel ñëpp ñoo bokk suba teel Ah, ma eh, na de ah waaw Pape Diouf sama doom day la xam nga soirée bi góor nay dëgër sax maa nga ca biir boo xoolee kilibam ba góor nay dëgër daa war a ma maa ngi ci biir ndax Pape Diouf tam moo jàngal gone yi waaye nag mooy ndaanaan mag ñee ko jàng waaw moo jàngal gone yi de Pape Diouf fa mi waaye daa sori nag xel la ak xam-xam bu mat sëkk Pape Diouf ndaanaan la ci biir ndaanaan nag gone ko ko yaay daanu nan ko ko songa ci alal daan ko waaye boo ko songa ci way da ngay daanu More banana? Yes, dominant.